fii ci rond-point bu Wakaam ab garab moo fa daldi di daanu ginnaaw taw bu bari bu ànd ak ngelaw gi fa amoon ci suba gi chauffeur bi nga xamante ni garab googule ci kaw otoom gi la daanu daldi di ne ñëwaat ci xew-xew yi. waaw juste dama xëy ma am benn tour ma dem cross ma ñëwaat après bi may ñëw à retour yabu ma ma ne xaaral ma taxaw fii jënd café quoi kon kay naanoo ma dara ma droite fii. si li ma droité noonu ngelaw bi commencé ngelaw bi mu commencé après si laa xool garab bi commencé yëngatu ma ne xaama pour génne odo bi quoi bu may dugal taal dugal premier fekk na garab bi wàcc si ko oto bi. après après si la gars yi ñëw xëcc porte bi ne verre bi toj ma mun a génne mais sant yàlla maa yoon si biir génne naa alhamdulilah dara jotuma ko waaye nag bu ñu sukkandikoo ci ña fa dëkk li ñu xamle mooy garab gi garab gu yàgg la te sax semaine gii ñu weesu rek benn branche daanu woon na fa. waxtaan si guddi gi si guddi yëpp. maax gardien bi nekk fii si si si garab gi lañ doon waxtaan ma ne ko garab gi yàggul dara day daanu moomu d'ailleurs sax moom mooma au téléphone 7 heures 30 ne ma la nga doon njortu am na ma ne ko lan mu ne ma garab gi daanu na parce que parce que boo xoolee karo yi dañ doon commencé décapité li ko waral li ko li ko waral nag mooy première euh, branche bi njëkk a daanu branche bi njëkk a daanu mën naa ne jenn wàllu garab gi la moo njëkk a daanoo benn côté léegi bon automatiquement bu amaatee dootul am équilibre ngelaw bu ñëwee rek da koy yóbbu. ba ñu màggale ba si ëllëg si la beneen branche bi daanu woon mooy bi nekk côté bi daanu na keroog fii ba màggale ba si ëllëg si la daanu lii tamit doog a amaat tey. lii dafa yàgg na wax dëgg yàlla man moom 2009 laa fi ñëw te fii laa fekk te dégg naa ñu naan yàgg na fi xam nag ban année la wante yàgg na fi. garab bi yàgg na fi. parce que le premier occupant bi nekk bi nga xamante ne moo occupé woon fii muy wadd pas wadd tool la yoroon fii moo fi moo moo moo moo fi defoon garab gi garab gi mën naa ne def na fi plus de vingt cinq ans plus de vingt cinq ans def nañ fi suñu enfance yëpp fii lañ ko foowee. garab gi daanu juróon na ay jafe-jafe borom oto yi nga xamante ni ñoo fay jaar ndax dafa baare yoon wi. ci noonu mairie bu Wakaam yebal na ab équipe ngir ñu wut ci saafara.